déglu muy lébu lébu moom itam moo jiite yenn taximaan yi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la nuyu ci yow la ñuy desandi ak euh, li nga xamante ne moom moo jëm ci journée sans presse bi gis nañ euh, démb conseil des ministres euh, njiitu réew mi woote na li jëm ci wàllu wàllub dialogue rénové ak ñi nga xamante ne ñoo di presse nationale bi ndax ñàkk waxtaan mënul am par rapport ak li nga xamante ne wax na ko ci journée bi nga xamante ne sénégalais yi gis nañ ko presse bi daal di koy amal Abdou. xam nga bala maa ñëw sax ci presse bi dama am lu ma bëgg sénégalais yi ñu xam ko ci ñetti nit yoo xam ne malgré ñi ngi liggéey fii ci kër gi mooy man muy abu jàlloo muy Ameth dañu dañ fiy ñëw ci kër gi di fi liggéey si képp ko nag ku jàpp ne sa xel ne ñun ñett ñii nit mën nañoo wax ne waxal nàngam wala jëfeel nàngam dangaa dof wala c'est que xamoo ñi ngay waxal parce que nit am na ñoo xam ne boo jàkkaarloog ñoom xeex bi bu tàngee rek dañuy délocaliser xeex bi yóbbu ko feneen comme ni ma la koy waxee mooy Ousmane Sonko tey bu ngeen jàkkaarloog boo ko dóoree méttee day indi renfort mooy ni mu digganteem ak abbé bi duñ ci dellusi damay bañ jikko boobu ñeneen ñi yor ko. am na ñoo boo jàkkaarloo ñoom ñu dóor la pic mu metti rek bul jël xeex bi nga naan waaw diw moo ko ko waxloo parce que diw non non que xamoo ñooñu moo tax am na ñoo xam ne kenn yàbbu leen sax ba naan la boo demee waxal ma lii wala lii nga war a wax ci émission bi est-ce xam nga ne thème bi am nii bi ngeen di dugal sax des fois du ma ko lire damay ñëw rek toog say question ci laay basé wu li nga laaj rek loolu laay tontu li ma bëgg a wax nag maanaam même bu kilifa gi toogoon fii teg siège bi dama koy wax kon xam nga kooku boo boo jàppee ne ay nit ñoo ne ci ginnaaw wala nit ki da ko jël pour mu koy waxal parce que nax nga sa bopp parce que loolu jikko boobu moo nekk ci yow ma koy wax nag ñi nga xam ne des fois dañuy toog naan waaw seen TV nangam dañoo jël ay nit nangam da a dof parce que wéeru leen parce que ñi ngeen di waxal ngeen xamul dafa mas a jàkkaaroog benn kilifa mu ne ma yow li tax nga naqaree jàppale dangaa dëgër bopp ma ne ko effectivement gis nga man su ma bëggee dara war a bëgg ko wax même bu mu boo xool ba asamaan bi doon daanu dinaa ko wax léegi li ma ci fekk après ma man assumé ko quoi nit nan la war a di dundee mais waroo jël bu affaire yi taree rek nga ne mais euh, sëñ Saliou moo moo moo ko wax loo lii wala Fatim moo ko wax loo diw moo ko wax loo parce que loolu yaa ngi wuti wallu te loolu du yëfu jantal meen moom loolu rek laa leen di dénk bi ñuy ñëw nag ci journée sans presse. réussir ngeen ko à quatre vingt dix huit pour cent parce que nag man yaakaar naa ne cinquante quatre quotidien moo fi ne su ma juumul quarante neuf yi respecté nañ ko le soleil moom jëru cee boole ndax le soleil jomaay jomaay le soleil d' accord amul problème seen rôle lañ ne mais dafa am yenn quotidien yoo xam ne dañoo ne woon ci yéen lañ bokk ba pare ngeen songu benn xeex boo xam ne dañ ko jël ne xeexu patron de presse la déedéet du xeexu patron de si xeexu presse bi la parce que gis nga benn organe de presse ngay dugg fekk fa trente journalistes nga fekk fa cent personne yoo xam ne ay journalistes fomp kata nga fa trésorier nga fa comptable nga fa même kii maquillé sax mu ngi ci biir ak ak toggukat xam nga ñun bokk si si xam nga duñ formé ay toggukat léegi loolu yëpp moom mu ëmb ko moom patron de presse bi di wëri wuti pour jox leen employé bi xam nga lu mu xam ñëw liggéey si wàcc fi salaire bi jógee fi xaalis bi jógee xamu ko léegi kooku bëggee ne xeex bi kat sama xeexu patron la mais patron bi mooy teen bi de bu teen bi sakkee yow foo jëm léegi nag ñu dem fexe ba diviser leen seen biir dugg ci biir xaw ma les jeunes reporters dañ ko wax dugg seen biir am na ci ñu baax nag ay ñoo xam ne wax dëgg yàlla xam naa leen ñu correct lañ dugg seen biir diviser leen naan leen seen patron yi dañuy dem mbëkki te Ousmane Sonko leen ko waxoon man moom xam nga du ma sosal nit mooy leen seen patron yi dañuy dem mbëkki dóor indi yéen la ñuy tayle ñu def ko seen bopp yi di ko xoolee seen patron yi mu jur nag benn affaire boo xam ne day indi filistréw seen diggante moo tax bi ñu wooyee journée de la presse am na ñu ci bokk nag par ñàkk pexe waaye yépp dañ koy rafetlu mais am na ñoo xam ne nag maanaam dama ne woon keroog bi ñu nee suba la journée de la presse ci laa ne suba ngeen di xàmmee les presse corrompu maa ko njëkk a wax avant buggaan di ko bind laa leen suba ngeen di xam les presse corrompu source a laa ko waxee woon bi ñu xëyee nag am na ñu feeñ néew ma nag kenn corrompu waaye am na ñu feeñ. nañ te dëgg léegi nag ñooñu may diggal may wax presse bi bala maa ñëw ci résultat yi ngeen am ma leen di ñaax yéen yéen ñi nga xam ne yéen a woon àndoon ci lii di ko xeex na ngeen ni ngeen booloo nii na ngeen ko fa yemale ñi nga xam ne nag euh, ay nervi lañ woon nekkoon seen biir xàmmee ngeen leen léegi ngeen teg leen nee seen problème bu leen ci dugg bu leen lijjanti seen i mbir parce que bu ñu leen waree rendi ci ñoom lañuy jaar ñoo leen war a ñadd yéen seen i mbokk ñu dagg seen bopp tañ bokk ci yéen xam nga dañ naan maanaam loolu jëfi tan la yëfu tan la parce que yaay fekk sa mbokk mi nga bokkal benn organe benn euh, nu mu tudd sa euh, waaw benn koor bi ngeen bokk ngeen war a solidarité nekk benn mais am na ñoo xam ne amuñu problème fisc mais teewul dañoo ñëw jàppale leen nga gis journaliste liggéey si toog ci plateau ne man liggéey si naa waaye sama patron moo ma contraindre pour ma ñëw waaye man bu doon sama sago du ma ñëw jaar di jël ay kàddu teg ko ci patron recadré ko ne ko bu doon man la nii laay def nii laay def nii nga defee ànduma ci kon xam nga ni mbir mi lees waxuta a nga ci mais nag bu fekkee ne yow nee nañ ah surne gor ya dee ngi ni gor yi tey la ñuy tey la ñuy dem wuti yow nga préféré nekk jaam ne déw ma mais suñ ne laa jaam nga bu ko bañ buñ ne laa yow jikkoy tan nga yor bu ko bañ waru ko bañ léegi nag kon yéen defaruwaat leen te jeune reporter yi ñu xam ne ñoom xeex bi ñoo ci waroon a njëkk nag xam nga lu tax ñoom duñu ay patron de presse te gis nga patron de yi leen di fay bu poos bi bënnee ñoom ñoo koy yëg keroog ne woon naa patron de presse bu lii dakkul nañ tëj ñoom ñëpp seen i kër ne boo yi léegi ñun dafa am pare nañ amatuñ ñu fay dàq nañ leen. fay. léegi dem leen ci ja jomaay ba xam ne ñi maanaam 54 quotidiens yëpp jomaay mën na leen a wutal xëy boobaa lay problème bi gën a neex a réglé comme nag nee na moom woote na waxtaan fala laal xam ne mais bu tax ngeen yolomal seen ngemb parce que njëkkoon na fee wax ne. woo na pour ngeen waxtaan bu ñu dégloo ci ñenn ñu ne bind nañ faale leen woon ba tey comme nee na ngeen ñëwaat bu tax ngeen yolomal téye leen fi ngeen téye te bala ngeen a waxtaan nag daar daar na am mu bàyyi moom maanaam sa waay mbir mi moom nag na deseere éto bi ngeen doog a waxtaan waaye mënul continuer tëj compte yi di di dagg convention yi pare naan leen kaa la ñu waxtaan lànk leen te presse dafa am doole ci réew presse dafa am taxawaay ci réew parce que presse day atte mhm. presse day atte ay nit bu njëkkoon sama maam bu xibaaru masaan génn ci rajo bi danaan dëgg la mais nag léegi moom buñ nee rajo bi wax na danaan ah nañu xool ba xam kon nga xam ne soppeeku jot na nag soppiwaat mbir mi xoolaat ko jot na merci voilà merci beaucoup Abdou am na solo say Joseph ba ci li ñeel wàllub journée sans presse bi avec euh, yi nga xamante ne peut-être le chef wax na ko ci conseil des ministres bi euh, par rapport que euh, noo ko jàngatee. waaw loolu moom moo moo war le président de la République parce que réew bu la ko joxee réew dafay doxee rawatina un état démocratique dafa am loo xam ni mooy base démocratie mooy euh, euh, nu mu tuddati ex la liberté d'expression maanaam nit ku nekk am sañ-sañu wax la nga xalaat beneen bi ci dolliku mooy accepter la contradiction nga am loo gëm keneen am lu mu gëm ngeen nangu ko ba pare dëkk yéen ñëpp. Mm-hmm. loolu mooy base démocratie ci jamono bii ñu toll xam nga ñu bari da ngay dégg ñu naan journée sans press bi def leen ko cent jours. Mm-hmm. ñi wax loolu dañu xamul ni ay pour ay nga am ay Millennium Challenge Corporation yenn financement yi. Mm-hmm. ni presse bi di doxee. dafa bokk ci indice yi ñuy nattee sa réew ngir mën di la jébbal yenn finance